soxna wa gay wax na léegi ne affaire yi mandat bu mu keuf sun jot ak sun tan lolou waxon na wer wala ñaari wer ci ginaaw fi ci Kaolack mané président Macky Sall waxul waxi manda waye na leer naññi pour ñop dama ne am droit ci def ko bu ko bëgge def dana ko def ak du ko def lolou leneen la wala mom la waye na leer naññi benn droit munuñ koo génnee boo xam ne mën naa tere président Macky sàll ne ko am nga mandat boo dese dana ko jël ak ko jël loolu leneen la waxaguñ ci waaye ne leer nañ sénégalais yi ciy wax wala ku bëgg a wax waaw dama ne yow mi nga xam ne yaa nekk di wax ca li ngay wax tegoo ko ci xam-xam sagam yaa mën a wax waxuma laa ñi nga xam ne ñi li ñuy wax ci xam-xam lañ ko teg boo amee fit bay wax ca li ngay wax tegoo ko fenn lu may sa coobare bakkan war ngaa mën a bàyyi nit ñi nga xam ne ci xam-xam lañuy wax ñu wax nit ñi nekkatuñu ay otage pour kenn ñun nekkatuñu ay jaamu kenn ku dul yàlla suñu borom la ñuy jaamu ku yaakaar mën nga ñëw téye ay otage boo waxee lii wala boo waxee laa ñu harcelé la ñu menacé la ñu saaga la waa dafa am sama benn xarit bu ma daan wax na ma politique wax xorom na ci comme ku mën a wax waxal rek boo waxee ñu tontu la dama ne affaire yi mandat ñun amatul luñ ciy wax pare nañ ci ci liggéey lañ nekk ak li mu def te kenn mësu koo def ak li mu ubbi commencé ko fas yéene koo def ci biir mandat bii ñun ci yooyu la ñuy wax ak nan la ñuy àndeel moom gunge ko ba mu def loolu mais affaire yi mandat pare nañ ci buñ ca yeggee incha allah wala bala ñu taa yegg bu jotee lañ ca war a wax réew mi yëpp dinañ ko dégg am na ci droit dana ko jël du ko jël leneen la loolu tëj nañ ko ñun na leer pour sénégalais yëpp li ñuy wax nag ku sukkandiku ci xam-xam génneel waxuma nag xam nga am na ñoo xam ne samay xarit lañ bëgguma leen a tooñ waaye am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla li ñuy wax moom dañoo wax ne ay nitu droit lañ waaye waxoon ci droit bëgguma leen a tooñ bu ñu xëcc nit ñi parce que xam-xam du ABC rek xam-xam du loolu nañ japp ne bépp matière bu ñuy jàng ci nasaraan wala ci anglais wala ci lu mën a doon arab moo ci jiitu pour wax ni nit fan lañ war a jaar ak fan lañ war a xam dama ne xaanul li ñu jàng nañ ko xam nañ lan mooy droit xam nañ ko bu baax te xam nañ itam incha allah buñ ca toggee pour war koo toj pour war koo leeral incha allah benn borom karawaat parce que car macha allah dama bëgg ñu xam ne borom daara yi fi nekk fu karawaat tàngee wala costume daggee fa dagg bu baax ñoo leen ko dàq fuuf ñoo leen ak possibilité bu jël mbir mi nekkul foofu mbir mi nekkul foofu mbir mi ci xam-xam la